tey ñu daje woon fii Daaru Salaam doon waajal benn set setal bu mag boo xamante ni moom lañ fi amal at mu jot si di ko def si eh, ñaanu sëriñ Mor Faty Mbacké mi nga mooy xalifa maam Cheikh Anta mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Mourou Mamoun waaye si ndigalu sëriñ Cheikh Anta Mbacké nga xamante ni moom mooy seen jëwrin ñu koy liggéeyloo eh, bis bi nag ñu koy def fii Daaru Salaam Daaru Salaam ñëpp xam ko muy dëkk boo xamante ni maam Serigne Touba moo ko moo ko moo ko fondé waaye muy dëkk boo xamante ni bi mu jógee si tukki bi tamit fii la ñëw kon euh, dañuy wax ne Daaru Salaam kon dëkk la bu am taxawaay si yoonu murit euh, ñu koy ànd nag ak daayira yi nga xamante ni ñoo nekk si biir dëkk bi yëpp ak euh, mbootaay association yi ñu ànd na taxawal bis bii nii waaye nag si njiitu suñu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk si dëkk bi yëpp waaye ay partenaires yoo xamante ni ku mel ne UCG ak mairie bu Touba ak ku ñuy wax Omar Badiane ak Serigne Baye Dame ñoom dañuy abal ay oto ñu xam ko nag kon dëkk bi ramas euh, dajale nañ mbalit mi fi nekkoon yëpp ton nañ ko dëkk bi seet na wécci ngir waajal màggal gi nga xamante nii moom la ñu waajal màggal Daaru Salaam di le 23 juillet incha allah ni ñu ko waxee léegi rek màggal goo xamante nii euh, Daaru Sëriñ Tuubaa bi mu jógee si géej gi fii la ñëw maam Cheikh Anta doon ko doon ko ganale ganale gu rëy googu moo tax ñuy màggal ñuy màggal màggal gi kon ñu ngi sant képp koo xamante ni teewoon nga fi